alors euh, est-ce qu'il y a possibilité d'un dialogue entre Ousmane Sonko ak euh, Macky Sall am na ñu ciy jéem a dox euh, seen démarches yi elles sont pour le moment infructueuses est-ce que jàpp nga ne ces deux hommes-là peuvent aujourd'hui dialoguer et s'entendre autour d'un compromis wala voilà, c'est c'est c'est vraiment fini entre ñoom ñaar. pour man dañu war a mën a dialoguer ñoom ñaar. mais est-ce que. non da dafa war a mën a nekk parce que pour man euh, ñoom ñaar ku ci nekk. par démarche bi nga entreprendre dem nga ba yóbbu Sénégal au bord du précipice parce que Ousmane Sonko am na lu mu jàppoon ne du ko bàyyi Macky Sall am na am lu mu jàpp ne du ko bàyyi ba mu indi fi yenn tension yoo xam ne mësuñu ko dund Sénégal mësuñu ko xam Sénégal ñaanuñu aussi mu amaat Sénégal donc lu mel noonu bu amee am ñaari nit yoo xam ne dañu jàpp ne ñoom ñaar ñoo ko seq le mieux mooy ñaar ñooñu bu waxtaan mënee am seen diggante mu am pour man Ousmane Sonko ak Macky Sall dañu war a waxtaan dañu war a trouver benn compromis dynamique boo xam ne dina permettre ñu régler ñaari affaire premièrement que justice bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk que la face soit sauve que justice nekk justice boo xam ne yi dañ koy respecté parce que képp ku nekk sénégalais nekk justiciable nga tudd Ousmane Sonko wala nga tudd Aliou Ndiaye boo defee lu deful justice tegu ci sa kaw mais sénégalais yi nga xam ne tamit ay sénégalais à part entière lañ dëkkuñu Guinée dëkkuñu Guinée Bissau dëkkuñu feneen nekk ay doomu réew mi bëgg réew mi gëm ne Ousmane Sonko moo war a réew mi pour que réew mi jëm ci kanam kenn waru leen xañ seen sañ-sañ ak seen seen seen mbokk kenn waru leen koo xañ ci simplement parce que da jàpp ne kii am na fu ma egg ak moom foo xam ne damay génn waaye bu may génn dama koy yóbbaale.